ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxaabati ajmain wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin mbokk yi nga xam ne ñooy teewlu ad dawratu sharciya muy université d'été bi nga xam ne at mu jot baaxoo woon nañ ko amal eh, mbooloo mu bari daa ko fekke di ci jariñu ci ay donga yu jàng ak ay nit ñu xam-xam yitteel ñu daa déplacé wu di ñëw di ko teewe ñépp ñu ngi leen di nuyu ren nag nii jamono tëdde tax naa ba noonee mu daa ame ci dajaloo jàppandiwut wut ñu wuyu woote bi nga xam ni autorité yi nga xam ne ñoo yor réew mi ñu ngi koy woote ci moytandiku dajaloo yi ak it eh, di sàmmonteeg mesure barrière yi di xaw a sore tax na eh, contexte boobu tax na mën a suta mbooloo waaye nag yiwu rëy wi it waree su ko bàyyi yiw la woo xam ne ku ko tàmbali faw di ko wéyee jamono ju nekk su ma nee nekk moo gën comme que jamono indi na ay xarala yoo xam ne mënees na ko wéyee continuer ko ba noppi it loole nga xam ne moom la kilifa yi réew mi santaane ci moytu dajaloo yi danañ ko mën a sàmmonteel wax dëgg loolu duñ def lu dul sant ci yàlla moo tax dawra boobu nga xam ne moom lañ baaxoo amal moom lañ baaxoo woon di amal naka jekk ren jii dañ koy amal waaye nag di ko jàllale ci jumtukaay yi eh, li ci jiitu mooy rajo bii nga xam ne mooy salaam FM incha allah eh, bis bu set ci fani dawra bii nga xam ne juróomi fan lay doon danañ ko ci jàllale li tàmbalee 17h ba 19h eh, fu waxtaan wi yam rek incha allahu taala seen YouTube dégg diine it mi ngi koy jàllale incha allah ku ko fa kar da nga ko mën a da nga ko mën a topp dégg diine. ci YouTube bi euh, kon xarala yooyu yëpp ñu ngi koy jëfandikoo euh, teyit euh, incha allah son yi ak ak sawtiyaat yi dana fi des ñu ñu mën ko jariñoo tey jii nag mooy sunu jataay bu njëkk ginnaaw bu ñu leen nuyoo ba noppi ki nga xam ne moom la ñuy àndal ci sunu jataay bu njëkkit dama leen di wax turam rek te mooy Cheikh Ibrahim Khalil Lo du ñu gudd ci di ko xamle Eh, daara ji nga xam ne moo nekk ngaabu di daara abdullah ibn mas'ud moom moo ko jiite eh, daara ji nekk ci ron eh, daarul istiqaama tey jii ñu war a waxtaane asalafu saalih wa makaanatuhum waaw mag ñu baax ñi ak seen wàccuwaay te loolu di ko waxtaane day lu am solo ndax bokk na ci wàllu tarbiya yi ëpp solo ci walla bind yi ëpp solo ci wàllu tarbiya am royukaay ndax royukaay day sàmm nit ki ba euh, njuumte mu gën koo sori kam kàttanam te euh, sun boroom euh, joxoñ nañu lislaam joxoñ ñu ay royukaay yoo xam ne jamono ju nekk war nañuy càmbar seenu dund di ca delluwaat ngir man di natt sunu bopp ba xam ña nga ca yoon woo ba léegi wala boog xaw nañ koo sori ndax royukaay yooyu lool la ñuy loolu la ñuy jariñ eh, di jàngat seenu dund jamono ju nekk day lu am solo te jamono ju nekk rek ñoom eh, tënk guñ woon ci njàngalay eh, diine njàngalay sharia njubug alquran ak sunna si bi sallallahu alayhi wa taxoon na tënk googee ñu ci tënk woon jamono ju nekk saa yu ñu amee ay xat-xat ak i jafe-jafe suñu delloowaatee foofee ñaare danañ fa fekk ay solution ak i euh, xulul ay ay ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ni ñu ngi jànkoon teg moom ci jamono ji kon dunduk mag ñu baax ñoo ñooñee moom euh, sunu diine moo ñu ca yabal moo ñu koy tegtal jamono ju nekk euh, te jamono saa yu jikko yu yàqoo yar jafe ah war nañoo gën a feeñalaat référence yi ba eh, ndaw ñi ak mag ñeeg ñëpp mën caa delluwaat ngir mën a jariñoo xam naa duma guddal eh, damay joxo kàddu gi rek eh, Cheikhuna Cheikh Ibrahim Khalil loo yal na ko yàlla sàmm su ko defee mu tàmbali waxtaan wi ci thème boobu nga xam ne moom laa leen junju te mooy mag ñu baax ñi ak seen wàccuwaay ci ci lislaam asalafu saalih wa makanatuhum kon Cheikh Ibrahim ñu jox la kàddu gi eh, ñu tàmbali insha allahu waxtaan wi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu buntu waxtaan wi ni ñu ko dégge ci sëriñ Maamun mi doon ubbi jotaay bi mooy assalafu saalix wa makaanatuhum mag ñi jiitu ak seen wàccuwaay mag nag buñ koy wax mag ci lislaam moo tax ñuy wax lislaam ña ca jiitu ku la ca jiitu rek moo la ca mag waaye nag te ñu yor melokaanu as muy ñoo xam ne tënku woon nañ ca yoon wa ba melokaan ba muy joxe muy ak mbaax nekk ci ñoom ak wàccuwaay ak seen tolluwaay ci diine li gën a yey ci loo xam ne kuy sàkku xam-xam war na ko yittewoo di ko gëstu di ko toppatoo gannaaw téere borom bi tabaraka wa mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi sallam ndax sunna soosu mooy leeral li suñu boroom tabaraka wa namm ci téeréem bi ci ay mbir yoo xam ne daf koy bëbëstal maanaam daf koy tënk waaye sunna mooy ñëw di ko firi sunna mooy ñëw di xamle daytal ya limit ya fu ñu ca war a yam sunna mooy gindee bañ mën a jaar ci siraatul mustaqim sunna mooy li nga xam ne ku ko topp dangay ngay gindiku waaye ku ko wan gannaaw da ngay sànku bokk na ci li gën a mën a dimbalee itam nag ci mën a xam lu sunna man koo sàmm mooy di xamlu ñi nga xam ne dund ñi nga xam ne ñoo ko tuxal jële ko ci yonant bi aleyhi salaatu wassalaam jottali ko nit ñi ñooñu nga xam ne ñoo ko sàmm ñoo ko jottali te ñooñu mooy assahabatul kiram ñoo ñi nga xam ne ñoo ko jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wattu ko joxe ko ci joxe wiin wu ànd akuk laaye biir mooy duñ ca nëbbu dara waaye duñ ca boole dara itam lu ca bokkut joxe ko ci anam gu rafet ba diine ji mat sëkk ci jàngale waaye ci jëfe itam ci ñoom saxaaba yooyu lan layu suñu borom tabaraka wa gën a saxe ci jaam ñi ci diine ji ne kenn amatu ci aw lay ndax bu dee lu ñuy xamle xamle nañ ko la ñuy jëfe itam wane nañ nañu koy jëfe ñoom kon ñooy xayrul xuruun mbooloo yu fi masa romb ñoo xam ne ñoo bokk jamono di dund ñoom ñooñu nga xam ne ñoo jonjoo tàmbalik diine ji wàccuk alxuraan ñoo ko fekke dund ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mi mu wàccoon ci moom mu ko doon jàngale ñooñu ñooy xayra umma uxrijat linnaas ñooy ngën ji mbooloo moo xam ne génneel nañ ko nit ñi ndax liñ mën a jariñoo ci ñoom duñ ko mën a jariñoo ci ñeneen ñu dul ñoom kon ñoom lañ jublu ci asalafu saalix yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ñoom ñooy alxarnul awal min hasil umma ñooy wuur bi jëkk bi jiitu ci xeet wii muy muhaajiroon ya ak ña nga xam ne ñooy waa lansaar suñ boroom tabaaraka wa taala di melal seen mbir di wax ne wassaabiquuna al awwaluun min al muhaajirina wal ansaar wallazina tabacuuhum bi ixsaan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri taxtaha al anhaar xaalidina fiha abada dalika al fawzu suñ boroom ne ñu jiitu ñu jëkk ña kon ñoo jëkk ci diine ji ñoo ca jiitu itam keneen ku dul ñoom muy almuhaajiroon saxaaba ya gàddaaye woon makka ñëw madina ak ñañu fekk madina muy waa lansaar ñoom itam ñoom ñépp ñu nekk ci diine ji ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu boroom ne ak nag képp ku leen topp ku ñëw seen gannaaw topp leen te rafetal toppiin wa ñooñu ñépp day suñu boroom gërëm na leen waaye ñoom itam gërëm nañu mbooleem lu suñu borom tabaraka wa taala def ci ñoom dogal ko ci ñoom loola gërëm nañ ko nangu nañ ko suñu borom waajal na leen ay ajjana yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suufam te buñ fa dëkkee dañ fay dëkk ba faw mu ne loolu nag mooy texe gu mag gi suñu boroom dellu leen melal ci beneen aaya ne lil fuqaraa il muhaajiriin allazina min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasuulahu ulaika humu saadiquun suñu boroom ne ñi nga xam ne ay fuqaraa u lañ maanaa duñu boroomi alal duñu wutkati àdduna doonte danañ ca fàggoo lañuy ñuy aajowoo mu ne ñooñu nga xam ne dañoo gàddaay ñu génne leen seeni dëkkuwaay tàggale leen ak seeni alal ci xatal gu ñu leen xatal la leen tax a génn bàyyi fa seen dëkkuwaay yooyu ak seen alal yooyu mooy di sakku ngëneelu suñu boroom tabaraka wa ak ngërëmam ñuy def itam lépp loo xam ne luy dëgëral diine suñu boroom tabaraka wa la seen yitte yépp itam luy dëgëral sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa la suñu borom ne ñu ñoo dëggu ñoo dëggu ci seen ngëm ñoo dëggu ci seeni melokaan loolu suñu borom mi ngi ko wax ci muhaajirun yi mu wax ci waa lansaar ne wallazina tabawwa'u daara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun suñ boroom ne ñi nga xam ne ñoo dëkke woon kër googee nga xam ne ñi gàddaaye Makka fa la ñu dem te mooy Madina waaye itam fekkoon itam ñu nekk ci ngëm yàlla lu jiitu ñuy ñëw ñoom day ku gàddaay ñëw ci ñoom te muy ku ñu bokkal pas-pas ku ñu bokkal diine ji dañ koy sopp lool dañ koy wettalikoo lool te du ñu yëg benn xat-xat du ñu yëg benn tiis ca la nga xam ne moom lañ leen di jox ndax ki gàddaay ñëw fi barab nga xam ne amagu fi dara kam fa fekk moo ko mën a dalal mu ne dalal googu ñu leen di dalal nag ak yaatal gi ñu leen di yaatal duñ ca yëg dara loo xam ne lu leen di diis la wala lu leen di xatal la waaye sax dañuy am lu ñu bàyyi sax ci seeni aq ak seeni aajo ngir jox ko ñi nga xam ne ñooy ñi ñëw fekk si leen doonte sax loole ñu leen di jox dañ koy aajowoo lool suñ boroom ne koo xam ne nag fekk na bëggeeg boppam ndax doomu aadama natiiram mooy dafay bëggee day bëgg yëfi boppam mu ne ku dof lu mel noonu nag te mooy li waa lansaar yi def nee na ñooñu ñooy texe suñ boroom wax ci ñi nga xam ne nag bokkuñu ci ñaari kuréeli saxaaba yooyu muy muhaajiroon ak lansaar te mboolem mooy mboolem ku ñëw seen gannaaw rek topp ci ñoom suñ boroom ne wallazina jaa'u min baadihim yaquluun rabbana axfir lana wa li ixwanina allazina sabaquuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mu nit ñi ñëw seen gannaaw itam te topp yoon wa ñu jaaroon dañuy wax ne yàlla sunu boroom yàlla na nga nu jéggal jéggal sunu bokk yi nga xam ne ñoo nu jiitu woon ci ngëm kon li muy tekki mooy dañ leen caa topp ndax ku la topp koo topp ca yoon wa mu la jëkk a jaar moom ngay wax ne moo la jiitu waaye koo bokkalul yoon kooku doo wax ne moo la jiitu ndax jaarul ca yoon wi nga jaar bokk leenu yoon kon sabaxoona bil imaan day tekki ne kon fa ñu jaar ci ngëm yàlla ak la mu laaj ñii ñëw seen gannaaw ca lañu ñu jaar di ñaan ne yàlla ñi ngi lay muslu yàlla boo def ci sunuy xol ak mbañeel wala ak noonu ci képp koo xam ne ku gëm yàlla la rabbana innaka raufur rahim yow suñu borom day ku amuk ñeewant ci say jaam nga ku am yërmande ci ñoom nga boroom dellu wax ci saxaaba yooyu ne laqad radiyallahu anil mu'minin is yu yubayi'unaka taxta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asaabahum fathan qariba mu ne yàlla suñu boroom gërëm na ñi gëm yàlla ñi doon jaayanteeg yow ca suufu garab ga te muhaajiroon ak lansaare ñépp a nga ca woon suñu boroom xam na la nekk ci seeni xol mu wàcce ci ñoom ak dal waaye fay leen fay goo xam ne mooy ak ubbiku gu jege goo xam ne danañ ko am ci diine ji gàllankoor yañ ci doon am wàññiku lool borom bi dellu melal leen ñoom saxaaba yooyu ne muhammadun rasulullah wallazina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjada yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuhihim min asari sujud dalika masaluhum fi ltawra wa masaluhum fi linjili ka zarcin axraja shat'ahu fa aazarahu fastaglasa fastawa ala suuqih yucjibu surraa liyagiisa bihim alkuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما suñu boroom tàmbale ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom mooy kii jiitu ñépp ci diine ji ndax ci moom lañ ko wàccee kon bu ñu ne as-salaf moom mooy ka ca jiitu mu ne muhammad rasulullah mooy ndawal yàlla wala siina maahu ñi nga xam ne nag ànd nañoo moom te mooy saxaaba yi ak képp koo xam ne it topp nga ca yoon wa mu ne ñooñu seeni melokaan ñu dëgër lañuy doon ñu jàmbaare la ñuy doon bu ñu jàkkaarloo koo xam ne ku weddi yàlla la kuy gàllankooru woote yàlla bi la ruhamaa u baynahum waaye ñu yërëmante ci seen biir la ñuy doon te yërmane fu mu am rek dimbalante dana fa am muñalante dana fa am jéggalante dana fa am mu ne danga leen di gis ñuy julli di rukkoo ka sujjóot te lépp li tax ñu koy def mooy dañuy sàkku ngëneelul suñu boroom tabaaraka wa taala ak ngërëmam yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwana seen jubluwaay bépp loolu la nee na seeni màndarga danga ko xam ci seeni xarkanam ci ci jeexitali sujjóot ya na seeni xar kanam di leere mu ne loolu mooy seen misaal ca tawra misaal nañ leen fa ci injil misaal nañ leen fa ci gàncax goo xam ne dafa sax ba dëgër ba màgg ba yéem lool baykat ya na muy rafete mu ne loolu mooy seen misaal ca injiil noonu la ñuy mel ñoom jullit ñooñu ñoom saxaaba yooyu su ko defee suñu boroom tabaraka wa taala day tàngal xolu yéefar yi ci ñoom ku gëm ku gëmul yàlla bu leen gisee xolam day tàng ndax ni ñu mel ci diine ak ni ñu ko jàppe mu ne suñu boroom nag digg na ñi gëm yàlla tey def lu baax njéggal ak pay goo xam ne gu màgg la suñu boroom ba tey dellu leen melal ne allazina yattabicuuna arrasula annabiya al ummiya allazi yajiduunahu maktuban indahum fi ltawraati wal injil yaamuruhum bilmacruufi wa yanhaahum an almunkari wa yuxillu lahum altayibaati wa yuxarimu alayhim alxabaa'is wa yadacu canhum israhum wal aglaal allati kaanat alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون suñ boroom ne ñi nga xam ne dañuy topp yonent bii nga xam ne moom la yàlla yónni nga xam ne ak xamleem ak i màndargaam fekk nañ ko ci tawraat ak injiil yonent boobu nga xam ne da leen di diggal lépp loo xam ne lu baax la di leen tere lépp loo xam ne safaanu mbaax la di leen leeralal daganuk yi nga xam ne mooy yu teey yi waaye di leen xamalitam itam araamuk yi nga xam ne yépp yu teeyul la yu mën a lor la waaye di leen teggil yan yu diis yi nga xam ne yan woon nañ ko ci ay aada ki baax ak i roy waaye di leen dindilit jéng yoo xam ne ay aada jéngoon na leen ko mu ne nag yonent boobu day ku ko gëm fonk ko màggal ko dëgëral dundal sunnaam topp leer gi nga xam ne moom lañu wàcce ci moom te mooy alxuraan ak sunna bu fa jëmm ja nekkut itam leer gi moom mi ngi fi nee na ñooñ ñooy ñiy taxe kon aay yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala mi ngi ñu ciy xamal wàccuwaay bi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ca tàmbali lislaam te nga xamee ne alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ko jëmmal ci ay jëf te doomu aadama li mu mën a jànge ci ak roy ci ay jëf ak na mu koy jàppee du ko mën a jànge ci loo xam ne da koo dégg rek wala daf koo jàng cib téere te mësta gis ko ko def wala gisul nu ñu koy defee moo tax suñu boroom tabaraka wa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa bayna qulubihim suñu boroom moo dëgëral ba diine ji taxaw ci ndimbalam ndimbalam loole nag bokk na ca ñu gëm yàlla ñi mu la booleel ñu ànd ak yow ci gëm diine ji ak di ko jafe bokk na ci li dikk ci sunna itam di xamle seen ngëneel ak seen wàccuwaay ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo jiitu woon jële nañ ci abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi laa tasubbu ashaabi fa wallasi nafsi bi yadi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban maa adraka mudda ahadihim wala nasifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn ŋàññi sama saxaaba yi sama àndandoo yi bu kenn wax ci ñoom naka su dul noona ne yéen ñi nga xam ne kat da ngeen ñëw seen gannaaw bu kenn ci yéen dépensé woon lu toll ne jabalu Uhud ci wurus dépensé ko ci yoonu yàlla du jot lu tolloogu muddu kenn ci ñoom muy bar ci loxoom koo xam ne dafa duy ñaari loxoom ba mu fees la mu cay am ci saxaaba yi keneen ku dul ñoom bu dépensé woon dundale ci alal lu toll ne jabalu Uhud du am lu toll noona du am sax genn wàll ga sababu ngëneelul seen dundale yooyu ñu doon joxe ci fi sabilillah bokk na ca la ku gën a dolli ngëneel mooy waxtu wañ ko doon joxe dafa nekkoon waxtu daruura waxtu woo xam ne waxtu lor la waxtu aajo lool la waxtu xatitam wuuteeg keneen bu dee joxe bu jamono xate itam du mel ne jamono jooja seen lañ doon joxe itam dafa jëmoon ci loo xam ne lu doon dëgëral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la di ko aar di ko jàpp ndalal li nga xam ne moom la ko suñu borom tabaaraka wa taala jottiloo loolu itam ku fekkewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ngay def baax na lool waaye nag duutu mën a toll ne li nga xam ne ki ko def moom dafa jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa directement moo tax borom bi ne laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ulaayika azamu daraja min allasina anfaqu min baadu wa qaatalu wa kullan waada allahu alxusna suñ borom bi ne laa yastawi nee na du yam même ci biir saxaaba yi sax ña nga xam ne qabla alfatx lu jiitu fatxu makka nga xam ne booba la xat-xat yi gënoon a metti ca lañu doon joxe seen alal ca lañu doon xeex di jihaad duñ yam ak koo xam ne gannaaw bi la doog a joxe alalam gannaaw bi la doog a bokk ci jihaad ba donte sax fekki na yonent bi sallallahu alayhi waaye biir saxaaba yi itam nag dañu ëppante waan ca mooy ña jiitoo jiitu ca ba mbir ya gënee xat ba mbir ya gënee jafe kon nag ku bokkul ci saxaaba yooyu kon euh, lu mu mën a defati rek ci ak njàmbaar ci lu baax suñu borom nee na ñoom ñépp nag digg na leen ak pay digg na leen aljanna ca lu baax lañuy def waaye nag du ñu tolloo laa yastawi albaydaawi rahimahullah nee na maanaam xadis bi nee na day wax ne kenn ci yéen su dundule woon dépensé lu toll ne jabalu Uhud ci wurus du am ci ngëneel akub yool lu toll ne la saxaaba ba dundule ci lu tolloog bar ci loxoom rek wala genn wàll ga la nga joxe lu mu rëy rëy ak ñoom la ñu joxe lu mu tuuti tuuti euh, du ko dab mu ne sababu rawate gi mooy la nga xam ne nekk na ca loolee ñu def ci ngëneel lu dolliku ca waxtu wañ ko defee ak sellal ga mu àndal ak dëggu gi yéene ga mu àndal ànd ak néewle gañu néewle woon ak néew gañu woon ñoom ci seen bopp ak aajo ja na mu tare woon ca jamono jooja ñu ne itam bokk na ci sababu ngëneelul seen loolu ñu doon dépensé ci alal doon ko dépensé ci seeni coono mooy loola moo meññi ubbiku lislaam ak kawek kàddug suñu borom tabaraka wa taala loo xam ne keneen lu mën a defati itam duuti jur lu toll ne ñoom lañu ñu defoon la mu jur moo tax ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw du ñu mën a egg ci fa ñooñe egg ci ngëneel ndax seen lim ba na mu néewe woon seeni ansaar muy ñañuy àndal nañu néewe woon ak seen jihaad ba na mu amee woon ngëneel ci ànd gi ñu ko ànd ak yonente bi sallallahu alayhi bokk na ci li dikk ci seen ngëneel itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne ibnu mas'ud radiallahu anhu moo ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xayru naasi qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum mu ne nit ñi daal ñi ci gën ci diine jii mooy ñi nga xam ne ñoo dund ak moom gëm ko topp ko di ay saxaaba mu ne gannaaw ba nag ña sës ca ñoom ñoom itam topp yoon woowa ak ña ca sësat kon ñi nga xam ne ñoo jiitu ci xeet wi ñooy xayrul xuruun ndax ñoo gëmoon yonente bi sallallahu alayhi wa ba ñu ko weddee ñoo ko dëggaloon ba nga xamee ne am na ñu ko ñàkk dëggal ñoo ko fonkoon ba nga xamee ne am na ñu koy bëgg a doyadal ñoo dimbali woon ab wooteem ak sunnaam ba nga xamee ne am na ñu koy xeex ñoo ko fatoon ba nga xamee ne am na ñu koy xatal waaye ñoo ko doon jàppale di ko dimbale ci seeni alal ak seen bopp ñoo doon xeex ak ñeneen ña nga xam ne ñoo doon jaamaarloog moom ba ñu dugg ci lislaam walla boog seen ay fegu ba mënatuñoo gàllankoor dara ci lislaam ñoom saxaaba yooyu nag gannaaw bi am nañu ñëw seen gannaaw ñoo xam ne ci ñoom lañu jànge ci ñoom lañu toppitam nañu toppe woon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñii gisuñu yonent bi waaye gis nañ ko gis yonent bi sallallahu alayhi muy taabi'oon yi ak nag ña ca toppaat muy silsila boo xam ne da ngay gis ku gis ku gis yonent bi sallallahu alayhi ba ba muy egg ci moom moo tax kon roy googu ak topp googu doon loo xam ne mënu cee ñàkk moo tax borom bi ne wala na tabaauhum ñi nga xam ne dañu leen a topp bi ihsaan ñooñu kon ñooy salafu hasil umma ñooy ñi nga xam ne ñooy way dawluy xeet wi ñooy ñi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tagg na leen ci wax gi mu wax ne xayrukum xarni summa allasiina yalunahum summa allasiina yalunahum ñoom ñooy royukaayu xeet bi yoon wa ñu jaaroon ci seen pas-pas jaar fa ci seeni jëflante jaar fa ci seeni jikko ak seeni mbooleem seeni mbir loole lépp ñu ngi ko doon jële ci alquran di ko jële ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam directement ngir jege gi ñu ko jege ak sës gi ñu sës ak moom fekk gi ñu fekkee asru tanzil muy bi alquran di wàcc ñu di ko fekke di ko déggee itam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñooy ñooy xayrul xuroon ñooy ngën ji génération ñooy ngën ji ay maas yoo xam ne mas dañ fee jar seenum ngir itam muy seenu doxin moo gën ci doxiin yi loolu tax jullit ñi xér lool ci xam seen doxin woowu ngir ñu mën cee jàpp ndax am ngir doo ca mën a jaar lu dul danga xam ngir mooma ña ca jaaroon ak nu ñu ca jaare woon loolu tax kon suñu borom bi ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم loolu moom mooy continuer ila yawm ñi nga xam ne topp nañu leen topp nañu leen ndax téere bi mën na fee nekk ñu jàng waaye nag bu ñu demee ca jëfe gën ak daal di tàmbalee wuute kenn ku ne interprété na mu ko neexe waaye su fekkente nag jëfin wa am na fu ñu koy jële méngale ko njàng ma loola bu boobaa di set ko mën a soppi moo tax kon xam lu seen dund xam lu seenu doxin ci diine lenn lu nekk nu ñu ko jàppe woon loolam mooy tax euh, diine du dem bay réer ci nit ñi ci yeneen mbir yu ñu leen di fental yu ñu leen di andil yeneen jëfandikukaay yu leen di andil yu wute ak li yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ak i saabam kon askanoo ne ci ñooña nga bokk muy ñu jiitu woon muy asalafu saalih muy saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom ba jamono yi ñu nekk ku la ci jiitu rek te jaar ca yoon woowa kooku salaf la ci yow salaf mooy lépp loo xam ne rek jiitu na la saalix la mooy su fekkee tënku na ca yoon wa askanoo leen nag ne ca laa bokk te fekk na xamoo fa ñu jaaroon ak nañu ca jaare woon nga roy ca jëmmi askanoo gi rek du jariñ moo tax kon jàng seen mën manhaj muy seen yoon wa ñu jaaroon ak nañu doon jëfandikoo diine loolu dañu ko daan toxalante jiil baada jiil génération bu nekk jàllale ko ca ña ca des ñu daan ko jàngale ci jàkka yi ko jàngale ci daara yi ndax loola mooy yoon wi ñu mën a jaare ba mën a xam seeni yoon wa nga xam ne mooy yoon wu sell wa wa nga xam ne dugaluñ ca ñoom seeni xalaat dugaluñ ca ci keneen dugaluñ ci ay aadaaki baax waaye dafa set wecc jóge ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa dara raxu ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam xebaare woon na ne sa yaksuru lixtilaaf fi hasil umma nee na woon ak wuute dana bari ci xeet bi doonte fa ñuy jële moom fenn fee muy alquran moom kenn mënu koo soppi sunna yonente bi sallallahu alayhi wa itam mënee su ko soppi wala lu ca nit jéem a dugal lu ca bokkut suñu boroom jàpp ndalal na yoon wu ñu mën a xàmmee loola waaye nag bu ñu demee ba ca jëf ga nag foofa la ñuy dugale yeneen ndax doomu aadama la mu miin tàmm ko ci ay aadaama ki baaxam ak muy xew ci milieu ba mu dëkk loola mu tàggalikook moom daf koy jafe ba tax na léeg-léeg daf koy bëgg solal mbubbum diine ngir bëgg ca bañ a génn ndax xam ne ne diine dafay tere loola waaye nag comme bëgg na ko faa bàyyi nag bugg caa génn dana jéem a fexe ba nu mu ko dëppalee ak diine ci bànneexam moo tax yonente bi sallallahu alayhi ne woon ay wuute dana bari waxoon ala ixda wa sabina firqa nasara ala sintayni wa sabina firqa wa sa taftariqu hadihi ala salaasin wa sabina firqa kulluha fi nnaar illa waxida mu ne diine yi leen fi jiitu woon ñi doon askanooy diine muy yahood yeeg nasaraan yi teqale ko woon nañu lool moo borom bi di wax naan wala takoonu kallasiina tafarraxu waxtalafu min baadi ma jaahumul bayinaat borom bi tere woon na jullit ñi la dal ñooña bañ leen a dal ne wala takoonoo bu leen mel na ñoom de kallazina tafarraqu waxtalafu te kat min baadi ma jaahumul bayinat gannaaw bu leen firnde yu leer dikkalee lañu ñu tàqale ko kon la leen tàqale mooy seeni bànneex ñooña fuñ mujj wa ulaayka lahum azabun azim ngir bañ tàbbi ca loolu nag moo tax suñu boroom tere jullit ñi ne bu leen tàbbi ci loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam jullit ñi ñoom itam danañ tàbbi ci taqalikoo googu ñoom itam ci ay kuréel yu bari waaye benn kuréel rekk mooy bi cay taxe ñu ne ko mooy ban mu ne man kaana ala misli ma ana alayhi al yawma wa ashaabi mu ne kuréel yi lu ñu bari bari bari ñiy askanoo diine diine lislaam kuréel ba cay mucc mooy ñi nga xam ne nekk nañ ci lii ma nekk tey jii ma ak samay saxaaba jamono ba mu koy wax lam nekk nee na ña nekk ca loola ñooñu rekk ñooy ñi nga xam ne ñooy mucc ndax ñooñu ñoo nekk ci lislaam ñooñu la ñu nekkoon kon mooy mën manhaju salaf mooy seenu doxiin mooy lu yonente bi alayhi salaatu nekkoon loola la suñu boroom di wax ne wallazina tabaauhum ku leen di topp ca loola nga leen di topp te toppiin wanag bi ixsaan mooy da nga koy rafetal doo ca yokk doo ca wàññi ndax boo ca yokkee toppin wa rafetatul ndax kon day mel na dangaa wax ne ña jiitu dafa am lu ñu mànkil moo tax yow nga yokk ko di ko ca mottali boo ca wàññee day mel na dangaa wax ne ña la jiitu woon dañ cee boole woon lu ci bokkut moo tax nga dindi ko ci kon danga ca yem képp fa in amanu bi misli misl exact bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw misl misl moom du ëpp du yées da ca yem képp suñu gëmee daal lu mel ne lu yam képp ne lii ngeen gëm kon dey ñoom gindiku nañ asalafu saalix nag muy saxaabatul kiram ak ñi topp yoon wa ñu toppoon ba jamono jii nu toll ilaa yawmil xiyaama seenu doxin am na ay màndarga yu koy fësal yu koy ràññee la ca jiitu mooy alwasatiyatu wal ictidaal ñu digg doomu la ñuy doon ñu amuk digg doomu akuk maandu ca la ñu nekk lañuy doon duñ ca ëppal duñ ca yéesal wa kazalika jaalnaakum ummatan wasata kon doxiin la woy woo xam ne day nekk diggante al ifraat wa tafrit ifraat mooy ëppal ba weesu fa nga waroon a yam dugal ci lu ca bokkut tafrit nag mooy sàggan gàttañlu ba dindi ca lu ca bokkoon ñoom kon dañoo nekkoon ca digg ba rek la diine indi rek ca la ñuy yem amuñ ca luñ ciy commenté amuñ ca luñ ca yokk noona rek lañ koy jëlee ndax lu jóge ci suñu boroom moom tabaraka wa taala moom jëlee ko ni la ko joxee rek moo gis nga malaayika yi ba ñuy bégal Sakariya di ko xamal ne alayhi salaam yàlla dana la may doom ba muy jaaxle naan an naa yàkkoonu li xulaam lañ ko doon mooy kasaalika kasaalika xaala rabbuk néewuñu ko naan ko nii nga koy amee wala naa ko waaye dañ ne ko nii la ko yàlla waxee rek xaala kasaalik xaala rabbuk loolu la sa borom wax kon diine ji moom lu wér ne lii alquran la lii la yonente bi sallallahu wax loola moom innama kaana qawla almuminin ida duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum an yaqulu samicna wa nee na xawlal muminin waxi ñi gëm yàlla bu ñu leen jottalee li yàlla ak kub yonentam wax lañ cay teg mooy sami'na wa ata'na suñ borom ne wa ulaika humul muflihun ñooy taxe waaye duñ am leneen ñu cay jéem a yokk wala luñ cay jéem a moomale seen bopp wala luñ cay jéem a dindi mandaga ñaareel bi mooy tawxiidu masdari talaqi wal istidlaal mooy ñoom ñëpp dañoo bokkoon benn jëlewukaay ci diine fi ñu koy jëlee ak fi ñu koy layale lu ñu def lu nekk ni ñu koy justifier ci diine ak fa ñu koy jële benn lay doon loolu bokkoon na ci li màndargaal seeni yoon ba ku leen di topp itam ci lool nga leen di topp te fu ñu ko daan jële mooy ci alquran ak sunna yonante bi sallallahu alayhi wa alihi moo tax dëgg leen daan fekk ñuy xeeñtu jeexeet yi bala ñoo def dara ci diine fexe ba am ca tegtal bu wér bu jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak loola lu mu leen mën a teg ci coono moo tax nga daan gis ku tukki tukki bu sori ngir bem xadis bu mu dégg ne am na ko ko wattu te moom wattuwu ko te ma nga barab sàngam lu mu sori sori dana fa dem ndax ñoom dañoo xamoon ne diine du jóge ci lu dul qaala allaahu qaala rasul ñi ñëw seen gannaaw itam xam ne mi ngi jóge ci qaala allaahu qaala rasul jooju déggiinu saxaaba na nañu ko dégge woon ñoom ña ko fekke woon nga xam ne lu leen ca mës lënt ñu laaj ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pratique ca def bu woo wuuteeg ni mu demee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal leen cay corriger fa saasa ñu daal cay génnaat ñooña kon ñooy ñi nga xam ne ñoo appliqué dina ji application boo xam ne bu mat sëkk la mandarga ñetteel ba ci seenu doxiin mooy muwaafaqatu naql al saxiix lil aqli sarix maanaam li ñu daan tuxal ndax diina dafa am an naqlu diina naqlu la naqlu saxiix waaye nag lépp loo xam ne lu ñu tuxal ci diine la ne lii la alquran wax lii la sunna wax xel moo xam ne xel mu leer naññ la dana dëppook moom ca loola moo tax suur borom bi te di daanee la yenn ay li qawmin yaaqiluun lii dey nit ñoo xam ne xellu nañu ñi ngi jëfandikoo seeni xel ñoo mën a jariñoo li inna fi zalika la ayat li qawmin yaaqiluun kon saa yu xel muccee ci ay subuhaat muy ay lënt-lënt te lënt-lënt la ko cay dugal mooy ay sahawaat mooy ku bëgg a topp bànneex kooku mooy wut lu muy layeele bànneex ya loola nag ay subuhaat lay doon waaye loola bu ca muccee mucc ci ay sikki sàkka loola bu boobaa day nangu diine ji nangu wiin bu sempal nangu wiin bu mat sëkk du am dara loo xam ne eh, lu mu ci dislu la màndarga ñeenteel ba ci seen màndarga yi ràññee seenu doxin ñoom ñoo ñu jiitu woon ci diine mooy set gu ñu setoon ci mbooleem anamu jàdd ak sos ci diine ji dañ ko sori woon lool moo tax kon képp koo xam ne yaa ngi bëgg a tàbbi ci walla siina tabaxuhum jooju ñi leen topp war ngaa wattandiku lool lu lay tax a jàdd yoon woowu wala lu ñu cay sos te bokku ca lu la ci nit andil rekk wax la ko ci diine na xam fa mu jóge ndax diine jottali la ki lay jottali nag dalay wax ne lii diwal ak fi barab sàngam la jóge loolu mooy tax mu tudd jottali waaye ki la jox te waxu la fu mu jóge kon moom moo la jox waaw ki la joxoon tey ñëw génn jox boo demee da naan diwa ma may nangam wala diwa ma jox nangam ngay wax waaye bu ne laa nag lii kat diwa la ko jox kon da naan diw de moo ma ko jox waaye diw moo ma ko jottali te digle ak tere moom suñu boroom tabaaraka wa taala moo ko moom ndax moo moom ay jaamam yonent yi li mu leen yónnee mooy ñu jottali yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafal fa ma balaghta risalata wa ma ala rasuli illa al balaag fa innama alayka al wa alayna al xisaab yonent bi day jottali alayhi salaatu wa salaam kon nag keneen ku mu mën a doon itam da ngay jële ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jottali moo tax kon bul wóolu nit walla nga am ci moom yaakaar ci ak mbaax ba tax la mu am lum la jox ci diine ba laajoole waale ko source bi fan la jóge lan mooy dalil ci lii nga ma jox bu dul loolu moom moo la ko jox ci moom nga ko jële te moom nag nekkul koo xam ne ku ñu war a jële ci moom la loo xam ne ci moom rek la jóge waaye ab jotlikat la war a doon kuy jotli na da ngay wax li ngay jotli eh, fi nga ko jëlee moo tax ngay gis saxaaba yi bu ñuy netti xadis yi def ko sa an fulaan an fulaan an fulaan jële ci diw jële ci diw jële ci diw ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir xamle ne rek mbir mi kii nga ko déggee ci moom mbir mi jógewul ci moom wax na la kam ko jële kooka kam ko jële kooka kam ko jële ba mu egg ci yonente bi sallallahu alayhi wa bu ñu la wax dañ laa la xaala qaala llaahu taala suñu borom wax na kon xamal ne lii ñu lay bëgg a wax ki koy wax duy waxam waxi suñu borom tabaaraka wa taala la lay jottali diine bu ñu ko doon doxalee noonu kon ak jàdd du ci am ak réer du ci am dugal ci lu ci bokkut itam du ci am bokk na ci seen dox doxiin itam mooy at tawaquf fil umuuril xaybiya maanaam mbir yi nga xam ne moom kumpa ñoom dañ cay taxawlu luñ ca amul tegtal loola duñ ca wax saxaaba yi lool moo doon seenu doxiin waaye gannaaw bi nag la mujj ak jàdd di am ci ñuy wax ci ay mbir yoo xam ne mbiri xaybu la yoo xam ne mënuñ caa am benn dalil ngir ay sabab yu bari loola moo indi ay jàdd jàdd yu baree baree bari waaye sabab yooyee waral jàdd jàdd yooyu boroom xam-xam yi leeral nañ yu bari te ki ko njëkk a wattandikuloo mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam luy tax a jàdd ci diine di ca dugal wala di ca wax loo xamut an taqulu ala llaahi ma la taalamuun loolu suñu boroom def ko xaraamal qul innama xarama rabbiya alfawaxiz ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bi xayri lxaq wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana wa an taqulu ala ma la taalamuun loo xam ne xamoo ko te loola mooy wax loo xam ne xay bu la amoo ca benn tegtal di ko wax loola suñu borom tabaaraka wa ni mu araamale bokkaale moom la sësaleeg bokkaale ñoom la bokk araamal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mujjug dundam waar na saxaaba yi waaraate woo xam ne waaraate wu jot la wu mat sëkk la woo xam ne wu jeexital la ba ñu bari ci ñoom dañ doon jooy ne ko yaa rasulallah ka annaha mawizatu muwaddi sa waaraate wii day dafa mel ne waaraatew kuy tàggutoo la kon nag fa aw sina dénknu mu ne leen uusikum bi taqwallah wa sam'i wa taa maa ngi leen di dénk ragal yàlla ak dégg ak topp ñu ne ko liman mu ne li wulaati umuuril muslimiin képp koo xam ne méngoo na mbirum jullit ñi jiite leen ci doxiinu àdduna wii nañu koy déggal li feeg mi ngi digle la borom bi tabaaraka wa taala digle di tere la suñu borom tabaaraka wa taala tere kooka aw melokaanam buñ ko ca xool moo tax mu ne wa am ta'ammara aleykum abdun doonte xeebu na sax ci yéen ba nekk ab jaam waaye bu kenn tax ñu gàntu la muy jottali ndax la muy jottali moom jógewul ci moom kon bu ñu bëgg a xeeb jëmmam ba xeebaale la nga xam ne moom moom la leen di jottali ne duñ ko topp ndax diw mi mu jóge ndax ñu bari ci ñuy xeex dëgg dañuy xam ne dëgg moom kenn mënu koo xeex waaye ka koy jottali kooka la ñuy xeex kooka la ñuy sikkal kooka la ñuy sikkal gis nga juróom wax naa la in ataatum basaran mislakum innakum isan la xaasirun bu ngeen fi nekkee di topp nit ne yéen kon sànku ngeen mais toppuñu nit nit ke day jotli yàlla la ñuy topp nit ke da koo jotali rek bu fekkoon ne moo wax waxi boppam ne lii maa ko tëral kaay leen def ko waaw kay kon am nañ droit ko euh, basal nga ne noonu amul bindoonu dundaloonu doonu rey doonu dekkal kon nag amoo ci ñun benn autorité boo xam ne boo ñuy sañ a digale la waaye ñoom xamuñu ne kookee ñu naan bu ngeen ko toppee toppuñu ko waaye moom day jottali fa mu jëlee ka joxe ndigal la kooku la ñu topp muy borom bi tabaraka wa taala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne fa innahu man yaïs minkum fa sa yara ixtilaafan kasira nee na ku fi dund ba ca kanam dana fi gis wuute gu bari te wuute gi toujours li koy waral rek mooy bànneexi nit ñi yéen nag bu boobaa ndénkaane la mooy fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrasidiin almahdiyin min baadi nangeen ngeen gëstu sama sunna mooy sama doxiin ci diina ni yonente bi sallallahu alayhi jëfandikoo diina ji pas-pas ba mu yoroon na mu doon jaamoo yàlla na mu meloon ci ay jikko na mu meloon ci jëflante nee na na ngeen xam lu loola te ngoy ca xam lu it doxiinu ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a jële ci moom muy alxulafaa ur rasidun mu ne ngeen jàpp ca téye ko bu dëgër te wattandiku nag yi nit ñuy sos wa iyaakum wa muhdathaatil umuur ngeen xam ne ka lépp lu ñu fi sos nga xam ne amul waaye dañ koo sos ci diine loola biddaa la te bopp biddaa nag ak cànkute la te cànkute moom ah, safara lay mujje ak boroom loolu dénkaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ci xeet bi ci ñu tënku ci yoon wi nga xam ne ci la ñi leen jiitu woon ci diine ji jaaroon ndax loola mooy yoonu mucc wa suñu boroom ne wa anna haza siraati mustaqiman fattabiuhu lii di lislaam suñu boroom nee na mooy sama yoon lu jub la kon nag topp leen ko waaye nag bu leen topp wala tattabiu subul fa tafarraqa bikum an sabili bu leen topp ñal yi mu yoon yu ndaw yi nga xam ne ñeneen na koy fent doonte diine lañ koy tuddee wane na ci diina ji lañ ko soqee waaye am na leneen luñ ca dugal lu ci bokkut saa boo ci dugalee lu ci bokkut rek doonatul diina ji gis suñu borom tabaraka wa taala ne woon wa raditu lakumul islaama diina al islaama nga xam dañ koo taarif ca jamono booba lay lislaam bu ne woon wa raditu lakum islaam man rek kon lépp loo tuddee rek kon yàlla gërëm na ko waaye lislaam bi yàlla gërëm mu nekk seen diine mu mottali ko mooy lislaam boobee nga xam ne ca la yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i sahabaam ba mu fiy jóge ca la bàyyi xeet bi lu ca bokkul woon mënu cee bokkaat lu ca bokkoon itam kenn mënu ko cee génne ku ko ci génne la nga yor léegi yaa ko tudde lislaam waaye fekk na euh, doonatu ko moo tax mu naan ko inna allazina farraqu diinahum wa kaanu shiyaan lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah ñi nga xam ne moom tàqale nañu diine ji diine ji benn la woon ñu tàqale ko kon la leen tàqale mooy lu ñu ci indi la ne bi kan ku ne yemoon ca lam doon kon duñ mën a tàqali ko kon su tàqali ko amee rek mooy kenn ku ne andi nga loo xam ne wute nga ca ak sa moroom keneen indi leneen ñu daal di nekk ay pàcc yu bari moo tax mu ne kon yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam jotee toog ñoom dara ndax nekkatuñ ci diina ji nga andi woon doonatu bokkatuñ ci ñi ngay seede fa kay fa isaa ji ina min kulli ummatin bi shahiidin wa ji ina bika ala haula ñooñu bokkatuñ ci haula ala haula i shahida haula mooy ñi ne ci lim nekkoon ñooñu lay seede waaye ñi nga xam ne nag andi nañu leneen luñ ca yokk wala luñ ca wàññi ñooñu moom duut leen seede yàlla mi nga xam ne nag moom nu waaye mën a mel moom moo la bind moo tax mu ne ko innama amruhum ila allah ñooñu seen mbir day dem ci yàlla directement rek waaye amuñu ko leen di seede su ma yunabbihum bi ma kaanoo yafaluun mu xamal leen la ñu doon def la mu leen jural tey Ah, kon yoon woowu lu mat a gëstu la boo gisee diine jamono bu nekk ñu war di jàng kenn wët a jàpp ne mokkal nga diine rek dal di toog ne yow jàngatoo wala déglatoo fu ñuy jànge mel na ni ma man ni baax na nii déedéet ba ngay jàdd bootul doo ko yëg moo tax boroom woon fa zakkir fa inna zik wa zakkir fa inna zikra fa inna zikra tanfaul muminin fàttali gi day jariñ bu baax a baax a baax ndax da lay gën a saxal bu fekkee la ñu wax yaa ngi koy dégg fekk yaa nga ca woon dangay gën a dëgër ah man de maa ngi am confirmation ndax lii ma def léegi dégg naa boroom xam-xam bi tudd na ko ci aaya wala tudd na ko ci xadis sa xel gën a dal bu fekkee njuumte amoon na ca nga daal di rectifier fa saasi na ah man que lii nii laa ko doon defee waaye ni ma dégg ñu leerale ko kat kon man am na lu ma ci doon bàyyi wala nekk am na lu ma ci dugaloon te bokku ci moo tax kon njàng moom kenn waru ko bàyyi benn yoon. jàngalekat yi dañuy jàngale euh, ñi ci des itam kenn ku nekk di jàng di jàngal ña nga xam ne la nga jàng ñoom jàngaguñ ko euh, mooy ci sunu yonente bi nag ak yoon woowu nga xam ne ci la salafu saalix jaaroon yoon la jaari la woo xam ne nag wu metti lay doon rawatina nag bu ñu demee ba ci jamono yii nga xam ne bànneex yi tasaaroo na mbooloo yi bari na autorité diine itam kilifteefu diine itam amatut nga xam ne lu neex waaye mu dugal ko ci tudde ko diine te du gis ku ko ciy génne loolu ci la tënku ci sunna gën a jafe te ñooñeey bëgg a nekk ci leneen lu wuteeg sunna bëgg a def diine ja ñoom seen mbirum bopp moo xam ne ci lañuy doxal seen mbiri àdduna ku bëgg a dellusiwaat ca sunna sa nga xam ne mooy doxinu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne diine ji doon mbirum kenn kenn moomu ko kenn yilifu ca kenn itam des cay jiite jiite rek nga cay def waaye yilifoo ci nit mel na yaa ko ci moom man ko caa digal man ko cee tere déedéet da nga koy jottali rek man ko caa caa jiite nag waaye la ko ca war moo la war mu ngi mel ne ilimaan nit ñi mu jiite julli li war nit ci julli gi rek moo ko war du taxaw naan rukkoo leen wala sujjóot leen moom toog fa mu toog ak sëlmal leen déedéet da koy def kay ñu def ko ànd ak moom moo tax kon yonent bi alayhi salaatu xam xamle woon na ne ak tumuranke ak jafeg dund li mu nekkoon moo ki saxaabaam dana amaat ca kanam ni mu amee woon ci tàmbali bi bada al islaamu gariban wa sa yaudu gariban kama badaa fa tuuba lil guraba nee na woon lislaam de bi muy doog a tàmbali dafa tumuranke woon lool néew lool ñu ca nekk mu ne dana delluwaat noona waaye bu boobaa nag texe ñeel na ñen nangoo dum dund ga ñu ne ko wamanil xuraba ya rasulallah qaala allazina yuslixuuna isaa fasada annaas wa fi riwaaya allazina yuslixuuna maa afsada annaas falaa yaslamu min addalaal fi dunya wala yaslamu min annaar fi l axira illa man salaka haza tariq yonente bi sallallahu alayhi wa ne ña nga xam ne ñooy xurabaaye day mooy ña nga xam ne moom la nit ña yàq ñoom ñoo koy yëwénal lu nit ñi yàq mooy lu luñ bëgg a dugal ca diine ja te bokku ci ñu leeral na lii bokku ci luñ ca bëgg a génn itam ñu leeral na lii ci la bokk loolee nag doxin woowee nag kenn du mën a mucc ci ak cànkute ci àdduna ak alaaxira lu dul ne dangaa sóobu yoon woowu nga xam ne moo doon doxiinu asalafu saalix asahabatul kiram ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw ñooñu mooy ñi nga xam ne suñu boroom wax ne ne wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika maa allazina wa xasuna ulaika wa kafa billahi suñu boroom ne ku topp yàlla akub yonentam ci jotli gi mu lay jotali li bàyyi ko ci suñu boroom tabaraka wa taala nee na kooku day ànd na ca ña nga xam ne suñu borom baaxee na leen xéewal na leen tàmbalee ci yonent yi ak siddiqiin yi ak suhadaa yi ñi nga xam ne dañoo shahid yoonu yàlla ak ñi nga xam ne nag ay saalixoon lañ ñu baax lañ nee na day pour nga bokk ci mbooloo moomu lala cay boole mooy taatullahi wa rasuli mooy tax nga bokk ci mbooloo mu mbooloo moomu te waxasuna ulaika rafiqa te nee na mbooloo moomee day ñooy ña nga xam ne seen ànd lu rafet la kuñ ku leen def àndandoo am nga àndandoo yu rafet yu baax nee na loolu nag mën a ànd ak ñooñu nga xam ne fekkantewu leen sax jamono ndax nabi yii ya jeex nañ bu yàgg siddiqiin suhadaa xëy na suhadaa mën nay am ba léegi saalixiin nee na ñooñu yaa xam ña ci dëkkal ak ña nga ci dëkkalul ña bokk ak jamono ña nga jamono waaye soo toppee yàlla ku yonentam yem ca kepp yow yaa nga bokk ca ñoom maa maa allazina an'ama allahu alayhim mu ne loolu nag zaalika alfadlu min allah wa kafa billahi alima loolu ngëneel la lu suñu boroom tabaraka wa taala defal ab jaamam suñu borom tabaraka wa farataal ci jaam yi ñuy jàng fatiha ci ràkka bu nekk loolu dafa am lu muy junj ci julli yi farata wala naafila julli gu mën a doon ngir nga ñaan ñaan gi nekk ci biir ihdina assiraatal mustaqim yaa ko ñaan de ihdina assiraatal mustaqim yàlla gindinu teg nu ca yoon wu jubba yoon wu jubboowee nga xam ne mooy yoon wi yàlla rëddal boppam wa anna haasa siraati mustaqiman siraati yàllaa ko moom ne kenn moomu ko waaye ku fent ñu naa la li yoonu diwa diwa fent yoon wii kooka duut yoon wi nga doon ñaan yàlla yoon wi moom moo ko moom siraati wa anna hasa siraati mustaqiman fattabi'u nga ne yàlla ihdina as-siraatal mustaqim jubal ma ca teg ma ca yoon wu jub woowee yoon wu jub wa wan yoon ndax yi ñuy tuddee yoon wu jub dafa bari même ñi fent ay yoon yu dëng yoon wu jub lañ koy tudde kenn du ne man yoon wu dëng laa yor koo wax ku nekk danaan moom rekk sax moo juble weneen jubut suñu boroom nag joxe misaal ci yoon wu jub wa nu muy mel mooy yoon wa nga xam ne ñi ñu mu tuddoon jiitu woon moom lañ toppoon siraata allazina an'amta alayhim foofe mu noon fa ulaayka ma allazina an'ama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa suhada wa saalihin ñooñu yoon wa jaaro loolaay yoon wu jub wa ñi nga xam ne an'ama allahu alayhim yàlla baaxee na leen defal na leen xéwal waaye bokku ñëw nag almaghduub alayhim ñi nga xam ne moom meroom suñu borom tabaaraka wa taala moo dal ci seen kaw te mooy ña nga xam ne sax danañ góor góorlu ba xam dëgg waaye nag bànneex moo leen di ëpp doole ba duñ mën a topp dëgg ga duñ mën a topp dëgg ga ak itam ña nga xam ne sax ñoom danañ jéem a góorgóorlu ne dañoo bëgg a topp aw yoon sonn lool lépp luñ leen la diine la ñu nangu caa ñàkk seen alal nangu caa ñàkk seen waxtu nangu caa ñàkk seen lépp waaye nag teguñu ko ci xam teguñu ko ci ràññee xamuñu fu ñuy jaar lu ñu leen wax rek ñu jël loola loolu mooy ad-daalliin mooy ñi nga xam ne dañoo sànku kon ñetti kuréel moo am ñi nga xam ne xam nañu yoon wi xam bu wér ba noppi jóg jaar ca ñooñu mooy am amta alayhim ñi nga xam ne sax xam nañu yoon wi waaye topp seen banneex moo tax nanguwuñ caa jaar ñi borom bi naan wa adallahu llahu afa raayta man ittaxasa ilahahu hawa ittaxasa ilaahahu hawa bànnee xam la jël def ko muy boroomam fu mu ko jaarloo mu jaar fa wa adallahu laahu ala ilmin mu xam ne ci xam la tege li ko sànk xam na ko yow ma koy bëgg a waar wax aaya boo tàmbalee moom bootul moo la koy njëkk a eggale kon kooka xam na waaye nag bànnee xam moo ko tënk fa in lam yastajibu laka faalam annama yattabiuuna ahwaahum te wa man adallu mimman ittaba hawaahu bi xayri hudan min allah inna allaha laa yahdi alqawma zalimin kon ku wuyuwul li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam andi jàngale ko nee na xamal ne kooku seetatul dëgg kooku euh, bànneex lay topp te nag amul ku gën a sànku koo xam ne euh, bànneexam la topp waaye toppatul ak njub kon mën haj boobu di doxin woowu nga xam ne moom la salafu saalix doon doxee dafa waraabal ci jamono ju nekk ak ci barab bu ne kenn du ne doxin woowa dafa wéy déedéet mbirum diine la mbiri àdduna moom mooy soppiku waaye mbirum diine moom borom bi akmaltu la ci jëfandikoo al yawma akmaltu lakum diinakum alkamaal alkamaal nag lu ko xas am moom noonu rek lay continuer mel noonu rek lay continuer mel te diine suñu borom tabaaraka wa moo ko moo ko matalal boppam kon yeneen yi ci des yépp ñu gis mu matal leen na mu leen bindee noona du soppikuwaat jant beeg weer yi ba mu fi nekkee ba léegi ni mu mel rek la mel asamaan seeg suuf si ni mel rek la mel aadama ni mu ko bindee amul benn évolution bu ci am ni mu rek la mel ba tey ca aadama ba léegi nit doomu aadama meloon ndax jëfi suñu borom la kon diine itam fa ko suñu borom tabaaraka wa matale woon yonente bi aleyhi salaatu wasalaam bàyyi ko woon ko foofa noona rek la mel leneen lu ñu ca yokk wala ñu wàññi ko ca dañ ko tuddee diine ja waaye doonatu ko bu boobaa moo tax imaam malik rahimahullah daan wax ne laa yasluhu axiru haasihi l umma laa yuslihu axira haasihi l umma illa ma aslaha awalaha nee na mujj xeet wii li koy mën a baaxal mooy la baaxaloon njalbeen ga la baaxaloon njalbeen ga te mooy yemoon ci alxuraan ak sunna képp jamono jiitam ak fu doom aadama mën a yegg ba ci mujjug jamono loola rek moo leen di mën a baaxal ndax loola du soppiku mooy alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi nag wattandikuloo woon na ay wootekat yoo xam ne dañuy woote ci ak réer dañuy jéem a wëlbati nit ñi ci jaar ci yoon woowu mu tudd leen duaat ala abwaabi jahannam ay wootekat lañ yoo xam ne nee na ñi ngi taxaw ci buntu safara man ataahum xasafuuhu fiiha ku leen topp ca lañ lay woo di ko tudde diine di ko gomfale di ko réyal lool waaye nag duñ la ca mën a andil benn dalil ci ay gént ak ay feeñoog ay dégg naag ay yooyu rek lañ koy teg te boo ko nattee mu wuuteeg alquran wuuteeg sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa ne na ngeen wattandiku ñooña na ngeen leen wattandiku lool ah, te loolu bari na lool ndax li ko waral ni ñu ko waxee mooy diine li mu amatul autorité boppam kilifteef goo xam ne ci diine lay dox nga xam ne ku wax ci diine ji lu ci bokkul ñu woola dij la dij boroom xam-xam yi nga layal li nga wax ba xam foo ko teg boo yeeyee nit ñi ñu topp la ci xam ne yow dëgg na a jiitu ci masala bii nga xam ko te xamuñu ko woon su fekkee nag mënoo koo layal nag lu may ci sa bànneex rek la jóge ah ñu laaye la biir nga jóge ca boo ca nangu jóge nag la ñu war a jëflanteeg yow ñu jëflante ko yow yoon woowu nga xam ne mooy yoon wi asalafu saalix jaaroon mooy yoon wi gën a mucc mooy yoon wi gën a xereñ ci yoon yi nga xam ne ñii ñëw seen gannaaw ña ngi koy fent dañuy wax ne ilmu salaf saafi dafa set wecc seen xam-xam ñoom ndax mi ngi jóge ci alxuraan ak sunna amaa ñu ñëw seen gannaaw nag bu ñu tënkuwul ca yoon woowa la xam dana am leneen lu ca rax ndax gis nga lislaam bi mu demee ba tasaaroo jaxasoo yeneen réew yi yi xam-xam yañ doon jàng ci ay philosophe ay yu demee noonu yu ca bari dafa dugg ci biir lislaam ba jaxasoo ci ba nit ñi xàmmeetuñ ko li ñuy tuddee ilmul kalaam euh, loolu ak rax la ci biir lislaam goo xam ne mën a dévier nit ñi ci seeni pas-pas moo tax ibnu rajab rahimahullah daana wax doon na wax ci risaalaam bi mu tuddee fadlu ilmi salaf ala ilmi xalaf ngëneel li nga xam ne xam-xamu ña jiitu woon ca ballukaay ba nag ndox mi fa muy balle nga xam ne rombagul fenn ci mbalit walla dara lu koy salteel ka tànqe foofa du bokk ak ki nga xam ne ndox mi dafa wal jaar fu bare baree baree bari ba yegg si mu doog a tànqe foofu ndax foofee muy jaar yu baree bare bari dina ko ca couleur moo tax nag kon fexe ba xam ndox ma fa mu balle woon nu mu mel ba ndox mu ñëw fi yow nga nattale koog ma jóge ca ballukaay ba directement bu bokkul ak moom lañ la ca rax te bokku ca bant yaa ngi yooyee nga bëgg bëgg woon a jëlaale defe ci la bokk nga seppi sànni fële ndox kat ndekete lii bokku ci woon waaye su fekkee xamoo ndox mu njëkk ma nu mel nag ñu andi la ndox moo xam ne ay xobak ay bantak ay xeer ak lépp ñëwaale na ci da ngay defee ne ci la bokk doo ci ñemee dindi dara ndax loo ci dindi dañ naan la wàññi nga ndox bi kon waaye nag su fekkee xam nga nag ca ballukaay ba na mu meloon lu ca bokkul da ko ca mën a dindi lu ca bokkoon te ñu bëgg ko ca dindi itam da ko ca mën a delloo kon daal mbokk yi euh, loolu moo doon li ñu doon fàttali ci bunt boobu euh, di dénk suñu bopp di dénk ñëpp daal ci nañu yitte woowaat xam sunu diine ndax kat euh, borom bi tabaaraka wa taala daf noo sas sas woo xam ne dafa digle mu jeex xam nga yeneen jaamu yàlla yi ci des yépp da ngay def li nga man rek ba ba nga fiy jóge waaye nekk ab dëgg-dëggi jullit moom wala tamootunna illa wa antum muslimun bu leen faatu lu dul fekk na nekk ngeen jullit dëgg nekk ngeen jullit dëgg kooku moom gis nga daf ko fetli wala tamootunna illa wa antum muslimun moo tax nga gis Yuusuf alayhi salaam doon ñaanaan tawaffanii musliman wa alxiqnii bi saalihiin yàlla yàlla boo may faat na fekk ma nekk ab jullit dëkk te nag njullit ga suñu boroom di wax mooy islaam boobee mu ne woon wa radiitu lakumul islaama diina ka jàpp islaam boobee kookaa tudd muslim kooka mooy ki nga xam ne eh, moo tudd muslim loola nag kon nañu yittewoo di delluwaat ca tàmbali ba jàng sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng siira saxaaba yi naa di wax ne saxaaba yi li gën a yéeme ci seen mbir mooy ni ñu jàllale diine ji te téyewuñ ci dara ñoom feeñuñ ci parce que diine yàlla ji da nga koy jàllale waaye bul ci wu dara boo demee ci sóoratu <coughs> suara suñ boroom tudd dafa juróomi yonent tàmbalee ko ci noox kasabat qawmu nooxin al mursalin is qaala lahum aquhum nuuhun ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma asalukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin boo demee kasabat aadun lil mursalin is qaala lahum aquhum huudun ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma asalukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin kasabat samuudun lil mursalin is qaala lahum axahum saalihun alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma asalukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin kasabat xawmu lootinil mursalin is qaala lahum aqawm lootun ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma asalukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin kasaba asxaabu aykatil mursalin is qaala lahum shuaybun ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma asalukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin seetu leen wa ma asalukum alayhi min ajri ji diine ji bu ci wu dara bu ci wutub surga bu ci wutub taalube bu ci wut ko lay bayal bu ci wut ko lay jox moom mooy ci dara wa ma asalukum alayhi min ajr ndax defe naa ne matub sëriñ yonent yi ñoo gën a mat ñëpp sëriñ te nee nañ nit ñi laajuñ leen ci dara wa ma asalukum alayhi min ajr in ajre illa ala rabbil alamin yàllaa nuy fay bu ñu la ko jàngalee nanga dem jëfandikoo ànd ko jëfandikoo ak ñoom saxaaba yi nag loolu lañu ñu réussir ana mbooloom Aboubacar gisoo leen fi ana mbooloom Omar ana mbooram Ousmane te bu fekkonte ne diine ji giiroo la ñoom ñoo ca jiitu bu fekkoon dañ koy giiroo rek ku ci ku ne wut boo sa mbooloom bopp ci biir diine ji kon ñi mujj ñëw duñ fi fekk dara waaye ñoom dañ doon jàllale muy jàll rek annama ilaakum ilaahun waahidun fastaqimu ilayhi avance rek fastaqimu ilayhi waaw jàllale rek dangay jàllale rek balaax jottali lañ def kuy jottali kay day jottali loolu kon mooy li jara roy ci ñoom ndax kat diine ji koo ko jàngal lu mu la ci mën a jox ci àdduna nga bëgg koo jëndee loola teewul perte nga moom la doon tas tasaroo bi aayaat yi sama neen xalila sama aaya yi ngeen di jàngal nit ñi wala ngeen koy jottali bu leen ko jëndee ak njëggu néew bëgg ca daraja wala bëgg ca alal wala bëgg ca mboole mu leen topp su fekkee loole ngeen ci am perte ngeen da ngeen ko jot li ngir yàlla suñu borom tabaraka wa fay leen kon nag yàlla nu yàlla tënk ci siraatal mustaqim boole ñi nga xam ne wala siina tabaahum bi ihsaan ñu dugg ci radiyallahu anhu wa rado anhu jooju yàlla na ci yàlla boole wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ah, barakallahu fiikum ah, Cheikh Ibrahim ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ni ah, jottali ngeen ko te ni ñu ko waxee woon ci tàmbali rek ku déglu danga xam ni ñoo kat xam seen taxawaay xam seenu yoon euh, lu mënta ñàkk la ci jullit bu nekk euh, ndax day mel ni ndimbal la ndimbal la ci ki nga xam ni euh, daa bëgg a pratiquer l'islam da ko bëgg a jëfe Euh, li koy gën a yombal ak jëfe mooy mu sóobu yoon woowu nga xam ne ñoom ca lañ ca lañ jaaroon euh, su ko defee nag loola da koy jàpp ndalal bu baax a baax njuumte ya gën a néew su fekkee njuumte dana ko gaar ndax ki ci jaaroon won la ni nim ci jaare woon ne leen nii lañ ko war a defee wax dëgg loola ak ndimbal la ndimbal lu rëy lay doon ci yow nga mën koo jëfe noonee euh, kon wax dëgg jamono ju nekk dinañuy soxla euh, référence yu mel noonu danañuy soxla di waxtaane seenu dundiin danañuy soxla it di delluwaat ci ñoom euh, ngir gën a mën a euh, sellal ngir gën a mën a jubal wala ngir gën a mën a topp njubug lislaam gi nga xam ni yàlla moo ñu ko tawfiqale kon du ñu def leen lu dul sant bu baax Cheikh Ibrahim ci waxtaan wu am solo wii di ñaanit ñu jariñoo ko e, dénkaan yi nga xam ni it joxe na ko ci mujj gi it ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax a baax waaw di xencu mbooroom gaa ñu baax ñoo ñooñee ak di ko tasaare bu baax ci ndaw ñi ak ci njaboot gi ba ñu xam ko ba denc ci ak réer loolu lu am solo la e, te loolu it gis nañ ni wax dëgg jamono Euh, léeg-léeg euh, ku seetlu bu baax danga gis ni euh, des des na bu baax a baax ab liggéey bu rëy rëy des na foofu ndax bari na ci ñoo xam ni amoon nañ ay taxawaay yu am solo yu ràññeeku nekk ay référence ci lislaam yu rëy rëy rëy te njaboot gi soo leen doon laaj seenu xam leen dana dana des lu baree baree bare te wax dëgg sunna ak alquranul karim Euh, su fekkoon daa wàcc noonu rek waaye kenn pratiqué wu ko ñu da dana jafe lool lu baree bari nga mën ko caa ràññee waaye ndimbalul sunu borom la mu wàcc alquran ak sunna ba noppi it euh, ñu pratiqué ko ci jamono joo xam ni ci anam gam gën a mate la su boobaa loola da lay gën a dimbali nag ngir nga mën koo dégg waaye su dul woon loolu mën ngay làmbut waaye ndax nii la ndax naa la waaye ginnaaw boo xamante ne am na ñoo xam ne jëfe nañ ko ca anam gëm gën a mate ànd kook rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba am ñeneen ñoo xam ne yaxal nañ loole di ko topp ba suñ jamono ji loolu wax dëgg eh, day wane ni diine la joo xam ne diine ju jàppandi la ni ko alquran tudde diine la joo xam ne diine ju jàppandi ndax jàppandi gi daa feeñ foofu ci eh, wan nit ñi yoon wi nga xam ni yoonu yoonu yoonu pratiquer ko la yoonu jëfe ko la kon eh, ñu ngi lay sant bu baax a baax Cheikh Ibrahim ci taxawaay bi te at mu jot rek ñaare saa yuñ soxlaa ab taxawaay bu nu mel ci dawra bi wax dëgg da ngeen koy jàppandal lool yal na leen yàlla fay aw yëwu yaatoo yaatoo yaatu te nangu liggéey bi bu baax a baax a baax te ful ko kon ñu dellu eh, ci bala ñuy yëkkat ci jataay bi ñu xamal ni jataayub suba bi ci altine ji e, dana jëm ci ci waxtu wi di 17h mi ngi jëm ci al ataima saxiya al maxalliya muqaaranatan bil ataima al mustawrada wa athaaru kullin ala sixati al aama mooy yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo e, te muy jóge ci sunu fii ak yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo mu jóge bitim réew lekk yi nga xam ne day jóge bitim réew ak lekk yi nga xam ne fii la jóge ak seen jeexee ci wér-gi-yaram ndax wér-gi-yaram moom jamono ji ñu toll bokk na ci actualité yi nga xam ne wala euh, mbir yi nga xam ne moom la ñu war a gën a jox yitte ndax gis nañ ni ñàkk wala walla wala question yu jëm ci wér gi yaramkat wax dëgg am na ay xat-xat yu baree bare baree bare yoo xam ne jural nañu ko ci jamono yi weesu te ba léegi sax ñu ngi koy dund nii te ba léegi sax ni ñu doxale su dawra bi euh, jeexiti wér-gi-yaram moo ko war ne kon ñu ngi jéggluwaat euh, di wax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ci Salam FM di ñu déglu ci dégg diine di ñu topp ci Facebook bi euh, ak ci Zoom bi ñu ñu ngi yëkkati jataay bi ba suba incha allahu taala ci di heures di dellu di sant Cheikh Ibrahim Khalil Lo mi nga xam ne moo ñu doon defal waxtaan wi tey jii te mooy jataay bi njëkk ci bu ñuy ubbi dawra charia bi nga xam ne mooy fukkeel ak juróom-ñeent bañ ko tàmbaleeg léegi yàlla na yàlla nangu mbooleem eh, li nga xam ne weesoo na fi caat yooyu yëpp ak lii nga xam ne ci lañ toll nii yàlla na yàlla nangu lépp te ful ko hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain